tedd ña jaraway sëriñ bu mag ba bind na bi ummi naa mu mën a doon soo ko ne ko yaay maan may ko jëmam jaa lu tax koy sikk ne moom jigéen la mu jëf ci màggal gi borom ñu ngi santaat bu baax sëriñ Béthio ñaan ay xéwalam yokk sotteeku ci ñun di ñaanal sunu sang bi soxna Aïda Saliou Thioune mu yàgg fi lool te wér Serigne Touba dimbali ñu ba ñu mën koo topp bu baax ni mu kem ni ko war a toppee di mbégum sëñ Béthio waaw tey li ñu dajale fii ci daral gi mooy tey lañuy joxe nag yi waañ yi ak ñi nga xam ne dañ leen ko dañ koo war a jot kenn ku ne lii sa cër. tey lañ koy joxe ngir mën a nag waajal barab bi ngir geneen xeetu waajalaat bu fi war a xewaat bu bokkut ak nag yi waaw muy waajal fi berne yi ak defar boo fi dellusee dans deux jours bu nee fii lañ defoon nag yi da nga naan déedéet ndax étape bu étape bi fi jotoon mooy nag yi jóge Mali wàcc fi dallu fi mu dalloo ñu am ci nag yi lenn génne ko loolu lii nga xam ne sëñ bi da ko daan def muy fexe ba nag yi jaar kër sëriñ Saliou loolu ñu def ko am lu ñu dindi ci nag yi dem def loolu dellusiwaat li ciy des moom mooy nag yi yi jëm ci sancaan yi dem yi jëm ci kër kilifa yi dem yi nga xamante ni ay wëllëre lañ ak kii bi sëñ bi daa leen ko defalit kenn ku ne jot sa cër su ko defee nag ñu defaraat barab bi ba mu setaat ñu am nag geneen xeet bu ñu tàbbiwaat oto yi ngeen di seen mooy oto yi jógee Mali indi nag yi Madinatu Salaam Saliou ah combat bi wàcc na Madinatu Salaam jërëjëf laa ilaaha illallaah lii kenn mësu koo gis oto yi jógee Mali ñoo agsi ni Madinatu ñun waa Ngam yaakaaruñ ku dul Serigne Touba bëgguñu ku dul Serigne waaye bëgg nañu ki ñuy dimbali ndax soxna day dimbalee dafa yàq ko waaw wane woowu ko wuti ci ku ko gërëm wuti ci ku ko xaram parce que bu ko doon wut kon